tey jii ban taxawaay ngeen ci parce que bi ma ko dégloo démb. Mhm. j'ai compris que la démarche n'a pas du tout inclusive parce que bu ne ay euh, wàññi bi ñu wàññi dañ ko basé ci ci euh, une technique purement scientifique avec des recherches yoo xam ne mooy li ma expliqué léegi euh, li nga xam ne moom la meññee yi doon gagné bénéfice yi ñu ci doon am moo xam ne alors que si chaîne bi. il y a pas que les donc euh, waroon na am au moins une concertation large boo xam ne yéen ça aurait été une occasion ngeen souligner aussi yoo xam ne dund ngeen ko ba bu ñu waree yokk wala wàññi aussi ñu tenir compte de de ces détails maintenant fi ñu toll nii tey mhm. yéen seen seen seen prochaine étape pour décanter la situation lan lay doon. suñ prochaine étape mooy dañuy ñaan d'abord mhm. état bi régler. différence am ak meunier yi. Mhm. ba am disponibilité farine. parce que amul disponibilité farine. déjà pression am na ci marché bi tey da ngay xëy di jëndi farine tey doo ko am. Mhm. parce que ñi am stock bu bari ñu ngi xaar ba xam dinañ leen ko rembourser wala de différence bi waaw téye nañ ko. usines yi facturé te wuñu lii may liggéeyee. Mhm. farine bu ma gardé woon man sama stock la te mu ngi jeex. bu ma liggéeyee tey sama stock jeex kon après demain incertitude la. loolu moo daal samay morom am na boulangerie yu liggéeyul tey parce que amuñu farine kon le plus rapidement possible mooy mu régler problème boobu ba disponibilité de farine am. Mhm. pour que pain mën a génn vendredi jeudi ak vendredi. parce que bu ko réglé wul buru du am si dëkk bi loolu day leer beneen bi mooy suñ ci jógee nag ñun boulanger yi dañ ko ni mhm. amuñu consensus ñun amuñu consensus lii mu ñuy dugal wax nañ ko ko. buñ ko liggéeyee noonu dañuy perte buñ ko liggéeyee dañuy tëj boulangerie yi te defe naa ni moom dafa am ñaari casquette yu mu yor. ndax dégg na leen bi ngeen ko waxee loolu. Ah. lu mu leen tontu. defe naa yorul woon ay kii de ay <laughs> dégg na leen bu baax euh, moom dafa am ñaari rôle. Mm-hmm. mooy ministre de l' industrie et du commerce. mooy protéger consommateur bi mais mooy suñu tutelle moo ñu war a protéger. ñun ay pët PME lañ. Mm-hmm. sukkandikuwuñ ci kenn ku dul moom li mu mën a def mooy accompagner secteur boulangerie bi toog nag waxtaan waxtaan bu yaatal li ñu koy invité mooy le plus rapidement possible mu ak ay technicien mu woo boulanger yi ñu toog xool nan la ñuy décanter situation bi parce que suñu rôle kat mooy jox askan wi mburu mais bañ cee gaañu bu sëll yooyu bu giir demum neex alors